asalaamaaleykum mbokki internautes yi seetaan fii ci Kër Ndaanaan TV ñi waxe koy waxee saa su nañ ci li nga xam ni mooy médecine douce alternative di seen émission sport et bien-être saa su nga xam ne mooy Kër Ndaanaan TV émission des jeunes sur la télé des jeunes mais jeunes nag dans le bon sens

jàppale ci li nga xam ni mooy médecine douce alternative di leen wax ni juste da di activer li nga xam ni moom mooy cloche de notification bi te abonné ci li nga xam ni moom mooy chaîne bi saa su ne nag ñun ak yéen la yéen ak ñun la tey nag ñi ngi ci émission bien-être bi nga xam ni moom mooy koy amal saa su ci Kër Ndaanaan TV daanaka tàmbali nañ def li nga xam ni moom mooy aérobic bi dañuy commencer rek après ñu continuer ci li nga xam ni moom mooy ñëw. Allez, top, jàppalee gendarme yi rek Thank you. waaw mooy ni leen ko waxee saa su ne ñi ngi fii nga xam ni ba tey mooy euh, Tivaouane Peulh ci médecine douce alternative muy euh, émission sport bi nga xam ni deful lu dul sport ak tàggat yaram te ku wax sport wax wérgu yaram nga xam ni saa su ne noonu lay amee ci Kër Ndaanaan TV ñu ñëw nag fii ci Namoura fas yéene ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy fitness show bi nga xam ni chaque année dañ koy def sëñ bi nuyu naa la. fay naa la. Euh, bëggoon a xam turbi nan la ak tey yow lan moo la booleeg ak yow yaay ci Namoura fitness. waaw ngi tudd Aliou Seynou Ba ñoo dëkk Tivaouane Peulh donc tey lu ma fi indi donc fitness club bii nii gars yi waa Namora organisé di ko tuddee ki nga xamante ne nii moo suñu leader di Jando yi donc Jando yi nag lépp lu ñu ko tuddee ñun du ñuy def lu dul ñëw accompagner ko donc loolu daal moo ñu fi indi woon tey. voilà tey nga ñëw euh, accompagner ki nga xam ni moom mooy ni nga ko waxee muy seen leader nekk je pense seen candidat ci li nga xam ni moom lañ dëgmal tey nag ñu gis ko ñu pare activité bi. Euh, moom ban relation la am ak jeunesse bi bañ pare leen li nga xam ne mooy activité jeunesse bi. waaw xam nga tey candidat bu nekk fii tey da nga am sa programme donc tey jeunesse bi dañaa gis ne moom programme am si sport. donc euh, nu mu nu mu nu mu ko tëralee ñu gis ne programme programme bu normal la programme bu jaar yoon la moo tax tey fitness club Namara tey seen bés bii nii. tey xamante ne ay jeunes si nekk tey lépp ñi muy ci sport ñu tuddee ko tey ki nga xamante ne mooy suñu leader muy Jean Ndoye en tout cas ñu tuddee ko ko ñu gis ni vraiment public bi ñëw nañ wuy si nañ bi nga bi mooy sama quatrième émission wala sama troisième émission boo xam maa ngi ko def ci banlieue bi banlieue bi lan moo leen boole ak tàggat yaram. waaw xam nga tàggat yaram moom daa bokk si doomu aadama donc doomu aadama bu nekk da nga war a di yëngatu di yëngatu parce que sport nit mënul toog rek te deful sport. tey loolu noonu boo ko defee tey feeb tawat yi bëri mun na nekk mun na mun na attaqué donc sport daa bokk si doomu aadama sport mënul dem doomu aadama dem. voilà en tout cas loolu sport mënul dem sans pour nit mënul parce que on est fait mécaniquement à bouger donc ku wax sport wax wérgu yaram ku wax wérgu yaram wax tàggat yaram. kon donc lan mooy ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoom mooy population bi ak ban message ngay jox ñi nga xam ne ay ñooy sportif yi à ce que ñu gën a continuer ci li nga xam ne moom mooy sport bi. waaw message donc nañ ñëpp ñëw jàpp jàppale waa MPD liggéey donc programme bu normal nañ yor programme bu noble nañ yor lépp pour askan bi lépp pour développer dëkk bi parce que tey gis dëkk bi tey nu mel donc li may wax si jeunes yi jeune bu nekk daa war di appliquer sport parce que sport daa daa bokk ci doomu aadama. voilà comme niñ leen koy waxee saa su ñu ngi ba tey fi nga xam ne mooy ci Tivaouane Peulh ci Namora coach nuyu naa naa la. vraiment bëggoon a xam euh, tur bi nan la ak euh, yow lan nga ci salle Gabriela Diompi laa tudd euh, man coach laa ci salle bi. ñu gis ni tey ngeen ñëw organiser fitness show bi lan moo leen motiver ba ngeen organiser événement bi nii. non vraiment kontaan rek te teg ci tamit boo gisee ñu def euh, euh, podium bi suñu papa Jean Doy waaw la ñuy supporté te moom moom lañ fi nekkal tey daal ndax lii moo tax li yëpp am waaw. ngeen organiser événement bi mu nekk événement boo xam ni c'est un événement multidimensionnel tey ñu gis fi des coachs yi ñu jugee ba Thiès ñu jugee ba Mbour ñu jugee Dakar ñëw fi loolu tey euh, nan ngeen ko dundee. ah xanaa mbégte terek te kontaan tamit te bu leen neexoo ñun dañoo jàpp wala ay euh, yaa ma gën a xam daal instant yii mënu ma wax na damaa kontaan. daanaka émission bi la yaa ngi ci émission bi nga xam ne mooy médecine douce alternative di am ci Kër Ndaanaan TV lan ngay wax waa Kër Ndaanaan TV ñoom ñi nga xam ne dañ koo bañ ba émission sport tuddee jox ko waa Sénégal waaw ah, xanaa di leen kontaan di leen rafetalu ndax li ngeen def kontaan ci trop nag vraiment loolu rek laa a wax bi moo ko jàpp te c'est tout à fait normal di leen wax ni ba tey ñi ngi ak beneen champion champion yéen ngeen nekk ci salle bi yéen lan ngeen dundee activité bi tey activité waaw rafet na moom ndax boo moom waaw borom baax la xam nga dañoo ñëw salle bi mu teeroon ñu nice yaa gën a xam bu ko neexoon tey di mu doxalee neneen kon du ñu fi gis mais borom baax lu mu organisé rek dañuy waaw yaa ngi xam quoi ñu may élèves. kon yéen yéenay timu timu booy Joola waaw timu ngi nii yéen tey bi yéen ñëpp nan ngeen ko tundee waa tim gërëm di ko sant billaay boo Joola kay bu amoo dañ koy créer wóor na yàlla. kon donc daal euh, mënul ñàkk mënul ñàkk dëkk boo dem war na am coach lan ngeen di wax euh, émission médecine médecine douce alternative émission bi nga xam ni dañ ko jagleel lépp loo xam ne mooy sport bien-être ci Kër Ndanane TV. tamit instant moom wax dëgg na yàlla kontaan nañu suñu xol euh, sedd na lool lool lool parce que gis nañ liggéey bi rafet na yéen tamit jàpp ngeen tamit ci combat bi lool tamit rafet nañ lool lool. mais ñun moom business bi moom wax dëgg bu amutoon moom xam naa ne moo xamuñu fi ñuy jëm parce que man ab benn ponkal laa woon mais gis na léegi boo ma xoolee. macha allah macha allah allah. waaw ah, moo tax daal boo jaa dañ koy di koy gërëm di koy ñaanal tamit liggéey gi yàlla yeggale ko mu sori sori waaw ah, mais kontaan nañu tamit lool lool di leen wax ni mun ngeen ñu suivre saa su ne ci médecine douce alternative ci Kër Ndaanaan TV bëgg naa yéen ñëpp ngeen abonné ci chaîne bi te activé li nga xam ne mooy cloche de notification bi def leen Kër Ndaanaan TV mun ñu suivre saa su ne médecine ñun ak yéen la yéen ak ñun la ndaanaan ci kaw ndaanaan fu la fekk def leen ndaanaan ñu abu wane bi wane na léegi wajala yaa wane dégal dégal yo hey waaw dama naa lii di ko nga wane tuuti voilà salaamaaleykum yaay booy salaam maa ngi ñu gis ni nga ñëw accompagner li nga xam ne mooy sa doom ci activité bi ñu bëggoon a xam tur bi ak sant bi ak yow lan nga ci dëkk bi ak lan nga ci koñ bi. waaw maa ngi tudd mère Sophie laa tudd sant Mbaye maa ngi dëkk fii ci Namora dëkkandoog Jean Ndoye ñu tuddee ko bis ma ñëw ngir jëmmu Jean Ndoye loolu moo fi indi tey. ñu gis benn activité sport yéen mu mel ni ay mag waaye yaakaar naa ni wér gi yaram bi ak tàggat yaram bi. yéen a ngi ciy yëngatu bu baax. waaw wér gu xam ne sport moom dafa nekk loo xamante ni day complété wér gu yaramu doomu moo tax dañuy jaar bi ñu gënee nekk ndaw loolu moo tax tey bi ñu ko yëgee ñu ñëw ci turu Zandooy nag Zandooy moo ñu yëkkati ndax moom la ñu tuddee bis bi ñu ñëw ci turam fekk si euh, show bi nga xamante ni ñu ngi koy def en en tey ñu gis ñëw ngeen ñëw jàppale seen doom jàppale li nga xam ne ñooy seen ay jarbaat ba tey ñu nga xam ne ñuy dund activité bi ñu bëggoon a xam yéen. lan ngeen lan ngeen bokk ak jeunesse bi lan ngeen di dund ak ñi nga xam ni ñooy xale yi def tàggat yaram ak wér-gu-yaram ci ci ci ci gox bi. waa na xale yi dañoo nekk ay xale yu baax nekk ay xale yu yaru mënoon a jël seen activité def ko ci leneen ñu def ko ci sport te ku nekk xam na ne sport dafa bokk ci li dundal réew sakkantuma gox moo tax tey bi ñu ko yëgalee ah ñu tuddee ko Jean Ndoye Jean si doon doom ju ku bëgg gox lu gox bi xew la ma nga ca moo tax ñu ñëw teewal ko tey a ah, ci jëmmam lañ fi tooge waaw ndax xale yi tamit ay xale yu yaru lañ yàgg a bëgg Jean Ndoye bëgg leen at mu jot ñu di ko tuddee saa koy def Jean Ndoye lañ koy tuddee mosuñu koo changé bañ ko commencé ko si joolaa ubbi euh, kii bi euh, bi ba at bu jot su amee programme Jean la koy tuddee loolu moo tax ñu kontaan moom ba ñëw toog fi tey di ko ñaanal di ñaanal Jean Ndoye yëpp dem ca kaw lan ngay ñaanal waa télévision Ndanane TV mooy télé bi nga xam ne dañoo xam intérêt sport ak intere li nga xam ne mooy wérgu yaram ñu jël émission bu toll nañu tuddee ko li nga xam ne mooy médecine douce alternative nga xam ni sport ak tàggat yaram rek lay def lan ngay wax euh, ñooñu nga xam ne ñoo def lu mel noonu. waaw waa Ndanane TV moom dañoo indaale seen tur ndax ay ndaanaan lañ ndax euh, sport moom ku ndaanaan rek boo ko dund ndaanaan pire mooy mooy mooy ndax sport dafa nekk loo xamante ni luy yokk wérgu yaramu doomu aadama la sport dafa nekk loo xamante ni luy guddal fanu doomu aadama la kon sport daal képp ku koy jëmale ci kanam rek ca kaw ca kanam laa la gis yow ci yow waame waame namoro est-ce que ça va te namoro fi des est-ce que ça va mais waa d'abord moom Allez, on... Yéen doon Hey Allez, d'autres personnes qui sont là, qui étaient là. Il y a Kotsi Djemé, qui être là, parler au nom. Djemé Kai, Djemé. Djemé, Djemé Kai, Djemé Kai, voilà. Allô. Djemé va parler au nom de tous les Kotsi qui sont là aujourd'hui. Kotsi Kai, Kai, Kai. À travers Djemé, la Khamé Bonjola. Waouh. Il est là. soutenir euh, son frère boo Diola mu nekk gest bu rafet parce que bu ko neexoon toog këram mais ngi mi ngi yore téléphone di ko woo tout temps mi ngi ñëw di ko accompagner di ko seetaan lu jaarul yoon après mu jël téléphone am daan ni lii jaarul yoon loolu mooy grand frère. tey mënoon na yéeg fii ci kaw pëjëm bi def mais tey dañoo am ay frères yoo xam ne si dañoo am ay talent toll ci ñu gis leen. moo tax kay ngeen gis ñu ñu taxaw ci suuf di apprécier seen prestation loolu mooy sunu cër actuellement parce que fi ñu toll booy yi dañu bëgg weesu foofu mais ñëwuñu sax pour jaay affaire moo tax ñu taxaw ci suuf ki ñu ñëwal tey daf ñu ko jaral muy Boy Diola parce que je disais tout à l'heure que c'est un homme qui a un caractère exceptionnel c'est un homme vraiment qui mérite d'être apprécié d'être accompagné soutenu parce que am na gëm-gëm am na détermination am na engagement muy Boy Diola parce que bu ko neexoon aussi tamit yem ci métier bi muy def parce que deful uniquement fitness mais dafa ñëw toxu si fii nii Namora indi fii fitness ba boo yëpp tey jii nii bëgg fitness bi grâce amoom ñu tàccul ma ko bu baax naan peccum ndiir bu neexee ndey jaay jàpp ci mbagg yi waaw am na ñu ko jàppale ngeen tàcc seen bopp bu baax waa Namora. borom couscous waaw borom couscous yi ñuy cité ci ñooñu nga xam ne si dañ ko jàppale muy Jean Ndoye may demandé ñu tàccul ma ko bu baax a baax Jean Ndoye parce que da koy lu bare bare bare bare bare bare bare kon Jean Ndoye am na lu muy jàppale booy joolaa ak jeunes yi nga xam ni ñoo nekk Namora ñëwoon naa fi wax ko ko. nee naa ko boo jàppalee jeunes yi ñun ñu jàppale la ñun loolu rek la ñu am pour que jeunes yi li nga xam ne si dañ ciy yëngu ñu gis si seen bopp réussir beneen bi aussi tamit ñuy remercier bu baax Ndanane TV ak sama frère ñàkk kii ñaan waaw muy ndaanaan bu mag muy masse nationale ñu tàcc ko bu baax a baax masse nationale mais aussi frère sama frère yi nga xam ne si muy coach Momo coach Ouz Kotsu Ndiouga ak euh, Lionel Auguste ak les frères de Boy Diola yi fi nekk yëpp toutes nos remerciements au nom de Boy Diola. ci chaque fois dama koy jox sama xalaat di ko remercier encore di ko encourager surtout ci lii mu continuer li muy def lu am solo la parce que sport ku koy def ci dëkk euh, yow médecin ba yéen yem. mu wax ko wala ñu bañ ko wax yow médecin ba yore yem plus que léegi da ngay dem sax hôpital ñu bind la ordonnance ne da nga war a defi sport donc gën leen koo fonk mu gën jëm kanam euh, ñu ko teg ci yoon man surtout loolu laay wax moo tax sama a kii souvent ñu teg ko ci yoon et maa ngi jégalu booy jolaa tey dama waroon ñëw def toog ak gars yi malheureusement euh, gars yi moo yu ma ko seqal à la minute la ñu koy pratiquement ci biir semaine bi alors que semaine bële passé dañu jóge ci événement moo tax gars yi jotuñu ñëw donc xam naa ne dañoo xat circulé euh, ñu ngi ciy bu baax a baax a baax waroon nañu ñëw de stock comme bu bu neex merci waa Batola waa <laughs> merci waa Namora. di leen remercier franchement ci seen teewaay booy Joola kontaan na daaw dafay jooy jooy bu fii fees daal moo tax peut-être mënu wax quoi waaye ñu bañ fii loolu quoi mais ñu ngi leen remercier ñëpp booy Joola di la wax ne bon ñu kontaan rek quoi ci suñu suñu rek quoi parce que mënoon nga def sa émission def sa première émission ba ñu boole bi mais gis naa bu jege sa affaire da ngay def tout effort yi fexe ba ñun ba ñu si jàmm def ab suñu bu neex gaa yëpp kontaan j'espère que waa Ndao naa kontaan ngeen kontaan ngeen ci bëri Dóoró moo fi nekk daal moo fi nekk parce que fii référé moom moo fi nekk def bon instant quoi ngeen jàpp si yéen ñëpp parce que dañu ko. d'abord ma may remercier sama borom bi coach moomu l'international gisee li mu fi def. moo fi nekk président président président déplacement sàngam ah, la gis nañ ne première édition ba deuxième édition daañu def teew franchement grand bu cool la les cinq xam nga amul benn problème a a jooy wax niñ leen ko waxe woon ba tey euh, tey ci Namoura nekk ci Tivaouane Peulh coach Boy Diola nuyu nañ la. sant naa la ba gërëm naa la. coach Boy coach Boy ñu gis nga organiser événement bu toll nii mu am dayo bi nii. Kër Ndaanaan TV télévision autrement ñëw couverture ko tey coach lan nga yëg bi nga xam ni gars yi wuy si nañ la ci événement bi. bon événement bi c'est très important ñor na trop lu may wax ci coach yi yëpp ku nekk nga góoru te lii day tax ku nekk nga am talent boo xamante ne di nga mën a gëm sport lii dafa doon loo xam ne tey jii. ñu gëmul sport ci koñ dañ koy gëm moo tax il faut ñun ñu jàpp si loo gis chaque jour may organiser fi événement pour booy mën a gëm affaire yi di ko def bon moo tax ma ne la suto ñaari ñii mënu ma leen fay mënu ma leen euh, gërëm mënu ma leen sant dañ koy def moo tax euh, c'est très important tey ji ñu wax ko ci télé bi ñëpp yëg. kon su ñu gis nga organiser lii waaw Mbour wuy si la waa Thiès wuy si la ñu gis master coach yi ku mel ni si Ngom wuy si la coach Jéeme ñëw tey lan nga yëg bi nga xamee ni coach yëpp maanaam ñëw nañ parce que l'amicale même des moniteurs du Sénégal teew nañ ak seen représentant tey lan nga yëg. bon comme bu ñu xamante ne ça fait trois ans ak Guémé mais dafa nekk nit ñoo xamante ne ñu baax la ñu jox ma cër ma delloo leen seen cër lépp lu ma soxla ci wàllu ma dama leen woo téléphone laaj leen balaa ma koy def moo ñoom. mënu ma leen fay heure bu ma soxlee fii ngoom moo ñëw taxaw jéemee dañu ñëw coach Sam ñëw na fi sax sànq mais après dañ ko woo mu taalaat oto bi demaat ñoom ñëpp semaine nit la ñun parce que dafa am cër bu ñu doxantee man nag ñoom daana Ousmane aussi dafa defoon première édition ma dem Mbour mu defaat deuxième édition ma dem ma invité ko fii mu ñëw ma invité ko mu ñëw ku baax la ku baax la nag te du ma ko fay du ma ko jox transport du moo ko jox dara ñooñu ñëpp maa leen gërëm. daanaan bi nag nekk télé boo xam ne mooy télé daanaan bi mu nekk émission daanaan bi dalal daanaan daanaan bi kaw daanaan fu la fekk daf lay daal di def daanaan yéen wax ni ngeen ñu suivre saa su ne ci Messi News Alternative li ngeen di wax mooy ngeen abonné ci li nga xam ne moom mooy chaîne bi te bu leen fàtte activé cloche de notification seen xarit seen coach seen soppe di leen ko defal bi Mass Sénégal ñii naa ma Mass international resté local kon ma Sénégal la yéen ak ñun ak yéen la Pawaat Pawaat émission daanaan bi dalal daanaan bi